yaay ñu sant ko bu baax euh, gërëm ko euh, yegsi nañu ci jàngat bi ak euh, Ablaye Cissé Chérif. waaw ah, loolu Ablaye Cissé tey nag ñu nuyu ko Ablaye dalal ko. borom xaru million ngi. léegi bëgg waxtaanee nag mooy. balaa loolu xam nga da ngay réew moo xam ne trois cent parti la am. Mm-hmm. ku solo nga ne ko couleur parti nga solo xam nga dana jafe 300 parti yi boo dindee couleur yi defe naa ku ne am na ci couleur boo xam ne tey moom la solo daal yooyu xëy na xëy na parti yu yi nga xam rek mais yow fa tey ban parti moo tax ma ko tànn kenn nekkul ci rose <laughs> <laughs> malheureusement dañuy ko wax naa ne nag euh, awtis mooy li xew démb fële ca Yoff euh, centre aéré BCEAO camion bi nga xamante ni dafa saaraani faat ñetti nit benn marchand ambulant ak ñaar yi xale yoo xamante ni kon ñoo bokkoon euh, nday ak baay ci benn taxi loolu nag euh, Abdoulaye du du ne guleet ndax mm-hmm. xeetu camion yi euh, gis na ni li ñuy def ay njombe ci dëkk bi bari na mm-hmm. ñu ngi fàttali ay at rek fële ca VDN ba ay ndongo daara yu génnoon taxaw ci arrêt bi wàcc bëgg a ñibbi ab camion saaraan ñu tudda leen sax camion fu ma ne camion yi ñoo fou wala ñun ñi leen di dawal ñu ñoo fou waaw ah, xam nga lii dañ ko waxtaaneeti waxtaaneeti ko te mm-hmm. dafay mel nii booy événement yu tragique amee yu mel ni ki ay viol sur ay mineurs wala ay pédophile ak yeneen émotion bi day dem de telle sorte que nit ñi dañuy bëgg ressusciter sax peine de mort ak yeneen lii bu xewee tamit di nga déggaat façon débat bu ne ci penc mi ci ñu taxaw ci xool ko mais xam nga lan mooy dëgg cest à waruñu di wax rek bàyyi jàll ci leneen gis nga boo jëlee verbatim verbatim mooy li ci kilifa yi di wax verbatimu président de la république Macky Sall du tax ñu am yaakaar trop ci ni lii solution dina am parce que xam nga lu tax boo defee historique bu gàtt le 15 décembre 2016 2016 du woon ci mandat bi mandat bële la le 15 décembre 2016 président mu ngi lancé début travaux terre bi di def discours am mu ne. dafa bëgg sax transport bi terre bi day moderniser mais leneen li nga xam ne ni moo ci aajo muy transport marchandise beeg yooyu tolérance zéro la bëgg ci contrôle technique oto yi loolu dellu si na tey contrôle technique gu oto yi Sénégal dafa mel ni dangay yor sa oto ba mu màgget nga door a décider ni lii mooy doon oto public cest oto sa oto bu baax boo yor sa oto bopp lay doon oto bi bu demee ba mënatulaa jëriñ mooy doon nekk clando oto nit ñi mooy oto nit ñi clando kaar yi ak yeneen ak yeneen ak yeneen gis nga ko clando yi sax léegi ay voiture personnel la particulier moom la ñuy wax clando boo demee ba oto bi jëriñatu la te loolu ñëpp d'accord nañ ni contrôle technique wallahi oto yi amuñu mënuñu koo am oto yi daw ci dëkk bi amul fooy jaar ba ñu ne la contrôle technique bi valide nañ ko yokk ci sax d'ailleurs Sénégal dañoo gën a durcir condition contrôle technique mais n'empêche ñëppay jàll ku yor sa mbége sax di nga romb ak business bi ci contrôle technique bi sax dañ lay recalé nii ne la léegi lii la nga génn tout de suite mécanicien yaa ngi fa taxaw lijjantil la ko jubbantil la benn affaire nga dellu ñu validé la te loolu c'est connu de tout le monde. Mm-hmm. président de la république ci boppa moo ko njëkk a xam ndax bu ma jógee ci datu 15 décembre 2016 mun na ñëw ci 31 décembre 2019. Mm-hmm. message à la nation bi nga xam ne def na ko te seq waxtaan ak journaliste yi moom président moo wax ni. leer na ko ni contrôle technique yi mhm. am na maslaha bu ëpp mhm. président nag bu constaté ni contrôle technique li nga xam ni moo yor suñu bakkan am na maslaha te defuñu ci dara vraiment cest du tax ñu am yaakaar ci ëllëg mhm. oto yi moom niñ nekkee ci dëkk bi mais camion yi est-ce que Sénégal war nañoo defar ay pont ci VDN bi par exemple bàyyi ay camion yoo xam ne amul frein ku ne xam na ni amul gis nga bu la camion jiitoo yéeg pont da bëgg a taxaw xaar ba mu yéeg ba nekk ca pic ba wàcc mais doo bëgg topp ci ginnaawam parce que bu circulation bi taxaw ba moytu mu arrière sa kaw am na nit ñi teewee incident boo xam ne nii camion bi dafa nekk ci pont bi ci pente bi apprenti bi di wàcc di def kal te image yooyu ñëpp gis ko mm-hmm. am na réew yoo xam ne dañu jël ay décision am na décision yoo xam ne autorités yi ñoo ko moom am na plan de circulation ak yeneen ak yeneen yoo xam ne nii war nañu ko mën a def cest à jël ay décision camions yi nga xam ne mais yaa xayti mën nañ dimbale nit ñi ñu renouveler seen parc. même am na fi arrêté gouverneur bu ñu tere woon fii ci Dakar camions yeeg gros porteurs yi ñu circuler ba njëkk. <laughs> mais Chérif xam nga loolu daf ñuy delloo si waat ci décision bi nga xam ne encore réagir à l'émotion à la suite de métti bi nga xam ne rayoon na fi vingt et une personnes. accident bu metti Abdoulaye Daouda Diallo moo nekkoon ministre des transports da ngay xool décision bi ñu jël ñu ne léegi dañuy interdire transport guddi comme si loolu mooy régler problème ku ne xam ne accident yi accident àllukaañ bi bëccëgu ndar kàmm la accident yi am yépp fii pratiquement bëccëgu ndar kàmm la cest à nit ñi ci seen coobare ci seen texet souvent dañuy wax ni d'ailleurs statistiques yooyu foog ñu xool ko parce que statistiques yooyu mën na tromper dañuy wax ni 90 pour cent des accidents statistique officielle la 90 pour cent dafa aaju ci nit ñi non sax nit ñi li leen koy yóbboo souvent mooy bañ a mën a maîtriser outil bi nga xam ne moom la ñu yor mënuñu dissocier nit ki texetam ak outil bi nga xam ne yor na gis nga. mais peut-être Ablaye xam naa ci guddi gi tamit euh, daf ci faral di am euh, souvent ci événement yu mag yi. nga mhm. xam ne ni dañuy circuler dañuy fonctionner guddi gi yëpp. Mhm. te nit moom. guddi soo nelawul. Mhm. Euh, bëccëg faw sa yaram laaj la ko. pays yu sérieux yi ma xam. dañuy am moyen de contrôle pour xool nit ki kiy def transport professionnel. muy ñi yore ay camions ñi yore ay bus. ñu am moyen de contrôle pour xool temps de trajet bi nga xam ne daw nga mais loolu boo ko amul yow nit ki boo ñëwee ne ko jàkk xanaa ay bët yu xonq xanaa ay bëtam xonk nga ne ko yow saway nelawoo mu ne la noo léegi laa jógee noppalu loo koy wax amoo benn moyen de contrôle donc il faut commencer par ça c'est-à-dire transport bi ni ñu ko bàyyi te ñun ñëpp di ko jël xëy na am na ñoo xam ne tey looloo tax transport bëgguñ ci gis nga réew yi moderne yi mm-hmm. transport moo gënal ñëpp sa oto bopp. parce que c'est anonyme c'est confortable ku ne mën na ci doxi sa soxla mais fii. amul sécurité deux sellul. setul donc pollution bi muy àndal yépp sax daf koy gën a yokk maintenant structure yi loolu aussi mooy problème bi structure yi war a toppatoo sécurité routière dafa bari. 2002 su Ablaye Wade la ñu crée association nationale de la sécurité routière ne moom la ñu ko dénk pour sécurité routière mais direction des transports routiers day toppatoo sécurité routière finalement ils ont réuni les acteurs. 7 novembre 2019 acteurs yi xam nga lu ñu wax ne dañoo bëgg ñu structure yëpp ñu mutualiser proposé nañ agence sénégalaise pour la sécurité décret bi génn na en conseil de ministres d'ailleurs président annoncé na ko mais ba léegi xamaguñu composition ministre des transports moo ko yor mais gis nga yooyu yëpp finalement nit mooy solution bi fii Sénégal formation est-ce que gisoo fi yow nit yoo xam ne dem nañu ba am seen permis ba yor seen oto mais jaaruñu auto école xamuñu luy franchir ligne blanche yow da nekk di dawal di respecter code de la route mm-hmm. nit nekk fa di la xababal tut waay jàllal xamul ni yow da nga bëgg respecter code bi bëggoo franchir ligne blanche bi flèche de rabattement ñii dawal oto chauffeur professionnel xamuñu luy flèche de rabattement mm-hmm. ñetti ah. flèche la yuy teglante di daw ci biir ville bi nga xamee ni yow tu es tenu de respecter euh, une vitesse boo xamee ni waroo ko dépasser mais nit day nekk sa ginnaaw. <laughs> mais bu dul puusal ah, demal mais cher bu dul code de la route bu dul code de la route est-ce que am nga signalisation bu lay woon mais xoolal centre ville de Dakar. est-ce que am nga panneau bu lay wan ni rue bi. sens de bii la. mel ni dëkk bi gan du fi ñëw. ngay xool oto yi fi ñu sax nga nga dugg xam ne sens interdit la nga gis gars yi naan la du fi du fi ngay tourné waat. c'est bien sûr <laughs> loolu mooy problème bi formation bi bu ñu ci jógul. nit ñi c'est-à-dire formé wu yaakaar ñoom code de la la code de règle la pour. yëf yi gën a gaaw Sénégal dem nañ ko ba rond point yi gis nga ko finalement alkaati yi mhm. dañuy couper nit ñi romp am na rond point yu gën a métti fuuf ci àdduna bi mhm. am na rond point euh, yi nga xamante ne Abdoulaye Daouda Diallo moo ko annoncé woon temps mhm. ñi nga xamante ni dawal surtout xeetu camions yi di béer yi nga xamante ni rëy fun saara musiba naar wala est-ce que duñ posé waat le débat même sur kan moo war a dawal xeetu camions yi nga xamante li yombe rek la ñu def ci dëkk bi. waaw mais ñu déjà seen formation sur le tas la ñuy jàngee ba am seen permis nu permis yi vraiment bon wax ko day mel ni da ngay ciblé nit mais ku ne xam na ni fii boo nekkee apprenti boo demee lijjanti sa permis di ko am. Mm-hmm. âge bi c'est important parce que xale bu xawul waye way tuuti. Mm-hmm. jarul jox camion mais ajuwul ci loolu kese. c'est-à-dire li ñu légèreté bi ñu àndal ci lépp sans mesurer les conséquences yi nga xam ne nii mën na koo am ci responsabilité mais da xool même ku yor bus bu mag di njëkkante loolu mais am na fi gis nga accident bi xewoon eh, fee ci Grand Yoff ñaari camion mm, frigorifique di njëkkante waxuñu ni bu park bi baaxee accident du am mais dana dindi lu baaree bari bari gis nga àdduna bi Ayrton Senna pilote formule 1 moo dàq dawal oto ñëpp d' accord nañ mooy champion bi gën a mag mais gis nga oto machine la lancé à une certaine vitesse. Mm-hmm. loo ay ay mënoo ci dara waxuma la nag. Mm-hmm. bu dee xottu oto nga yor. sanction yi laay sanction yi itam gars yi ne nañu absence de sanction yi itam moo tax personne mal intentionné di persister encore ci li ñuy def ndax xam nga euh, bêtise mënul passé lii loo xam ne mënoon nañu ko éviter nga faat ay bakkan ba noppi itam après soo paree da la jay fekk amaana du daan yoo xamante ne si euh, jaaduma xam nga tolérance zéro bi ñu fi fàttali nii président waxoon ko 2016 tolérance zéro mooy bu leen baal dara. Hmm. ci wutin bi wala it bu defee lu dul noonu. fii gëj nga fi dégg procès diw moo def accident ba rey nit. vraiment te faute bi nag ñun ñëpp la ah hmm. ñëpp dañuy jàpp ne nag ndogalu yàlla la. waaw ndogal boobu moom euh, buñ ci jógul. Hmm. mais lépp dafa am ñoo xam ne ñoo koy responsabilité bi. responsabilité publique bi waa yoon la waa police. man même su ma porté wul plainte man mii famille am na loo xam ne nit bu ko defee société bi la ko def parce que dafa mettre vie wu ñëpp en danger mais nag état responsable dañuy def li leen war ba pare gis nga léeg ci route yu mag yi traçage amul te loolu c'est important parce que nit ñi bu ñu xamul fil bu ñu war a daw léeg-léeg da gis affaire yi effacé wu kenn du ko defar nii de pax yi moom te gis nga même booy daw ci corniche bi oto yi léeg kenn du nangoo daw si sa voie da nga koy dévier tuuti parce que regard yi ak yooyu kenn du ci bëgg dugg. Mm-hmm. donc finalement ñun ñëpp wax ñun ñëpp xam nañu loolu. oto yi dañuy presque ci digg bi la ñuy daw. te finalement mën na indi ay ji te loolu dañ koy gis. Mhm. di ko seetaan di ko seetaan ba mu indi njombe ñu ne nit ki la mais contrainte yi ñu teg nit ñi. Mhm. en n'assumant pas mhm. euh, a euh, dem mooy infrastructure routière ak respect parce que da ngay gis moom même gabarit yi koo xam ne la fii 4 mètres par exemple 50 oto bi bu fekkente ni dafa yab lu koy wol dugg ci suuf pont mais dañ koy def yàq li nga xamante mooy infrastructure gis nga fii ba mbaaw infrastructure mooy li nga wax ñàkk sanction ci wàll yi nga xamante ni même bu la yóbbuut kaso nga fay ko ci say poos su ko defee nga mën koo delloo ci li nga xamante mooy kees ak nguur parce que Ageroute li ñuy réfectionné ci loolu dafay bari yaa ngi fàttaliku règlement 14 UEMOA bi nga xamante ci wàllu woowu la pour ku nekk di chargé loo xam ne moom <laughs> mujjee taf yëngal la sax finalement parce que coow li fii bu coow amee dañuy gaawantu sax ne nëpp jàll daal boo jàll ci le bàyyi ku nekk mu def li mu nekk loolu ba léegi réglé wul en fait coow li dafa dakk rek mais ba léegi réglé wul mm-hmm. loolu mooy problème bi fii infrastructure mais xoolal ci route bi nga route <laughs> nationale bi boori euh, du publicité mais booru lobu mam njaara fële mbaaw mais passerelle bi oto daf ko teggi defaruñu ko ba léegi et fii oto yi di defee demi tour mais c'est extraordinaire c'est-à-dire route nationale on permet aux gens de venir traverser une voie rapide dans les deux sens foofu chaque jour l'État met en danger la vie des citoyens te ñun ko xam defaruñu ko. très bien jërëjëf euh, Ablaye Cissé ci jàngat bi am na solo may fàttali li ñu doon waxtaanee muy sécurité routière mu soxal nag wala bokk énième euh, accident bi am démb ba ay bakkan faatu ci ñetti doomu aadama ñoo ci ñàkk seen bakkan ñaari diggoon gone kenn ki marchand ambulant bu ci yemoon mi ngi am ci booru yoo fa apix yi ñu jaajëfal ko bu baax desandi ak ñun. dalal suñu invité